sëriñ Xamidullaahi ak sëriñ Mahmadan ñu ngi leen di jox nuyoo bu sell ngeen jottali ñu ko Cheikh Mouhamadul Mountakha te ñaan suñu borom tabaaraka wa taala bu àggale yéeneen ak liggéey bu sell bii mu def ci dëkk bi ci barke Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu ngi nuyu mbooleen kilifa gu fi teew bi kilifa aada commencé ko ci monsieur maire de la ville de Touba monsieur Abdoulaye Ka teg ci ñi mu àndal muy équipe municipale bi liggéey loolu di nuyu ay invités monsieur le gouverneur de la région ak ay adjoints di nuyu monsieur le préfet ak monsieur le sous-préfet nuyu. chef de village yi fi teew ko ci Serigne Modou Mbacké teg ci Serigne Modou Ba ak Serigne Abo Mariana moom laa wax na ci turu Serigne Saliou Dieng chef de village Touba bu Xaatu Moubarak ñi ngi sant mboolem askanu Touba bu Xaatu Moubarak ñu teew yëpp ak seen chef de di sant aussi chef de village yi nga xam ne si ni mooy ñi ma leen léegi ak seen ay chef de di ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala liggéey bii monsieur le sumb di pose première pierre tali ñu àggale ko ci jàmm ak salaam te yeggale ko ñi ngi sant bu baax a baax a baax en tant que ndawul monsieur le maire yéen askan wi ñuy déglu nga xam ni lii monsieur le maire Abdou Lahad Ka def yéen la ko defal dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax te bu baax baax a baax a baax te xam ni président de la république monsieur Macky Sall bu yàlla dogalee mu nekk ci bopp réew mi mën na dem bitim réew wuti ay projet bu wutee ay projet bu ñëwee da koy indi ci réew mi séddale ko commune yi commune yi mu koy séddale toll nañ ci 532 communes bu yàlla dogalee monsieur le maire Abdoulahat ak équipe municipale am góor-góorlu ba nekk première ci juróom juróomi téeméeri communes yooyu am ci wàll woo xam ne si nii moom lañ nekk tey fii di ko séddale ñu am ci ab tali loolu njàmbaarteem la fullaam la ak faydaam la ak dëggoom pas-pasam raison pour laquelle ñun en tant que ndaw te xam ni ëllëg lii muy liggéey yàlla mën naa dogal ñun ñooy ñi koy jariñoo kon ñun lay defal am nañ devoir ak obligation sant ko baax a kon monsieur le maire Touba bu xatu mubarak saamu sëñ Abdou Latif saamu sëñ Bara Xuuje ak Touba Mariana ñi ngi lay sant bu baax a baax jëf ji bu baax a baax jëf ji ndax jëf ju rëy rëy rëy la te amoo benn obligation pour indi ko kon boo ko fi indee xam ne yàlla na rek moo tax kon askan yëpp ñi ngi lay sant bu baax a baax a baax a a sant aussi askan wi nii xam ni ñi lañ leen wooyee ñu wuy si xam nañ ni lii maire def ñoom la ko defal moo tax duñ leen wooyee ñëw si bu baax a baax a baax ak seen caddkat yi ñu àndal yépp du ma guddal kaddu gi chef de village Serigne Saliou Dieng daal nee na xolam sedd na xelam dal na sant na ñëpp sant na monsieur le maire sant na kilifa yi fi teew yépp mi ngi ñaanal aussi Serigne bi yàlla yàggal ko fi wéral ay cëram ba liggéey maanaam bii mu mën koo liggéey ni mu ko bëggee mi ngi sant bu baax a baax aussi média bi. dafa tudd ay tur nommément ñu ma nañ leen sant ndax ku ñuy wax Mor Talla Fall ak Cheikh Amar ak média bi ci andi ñëpp communicateur traditionnel yi Modou Mbaye Touba Modou Mbaye Ndiaye ak ñi a àndal liggéey bi ñu ngi leen sant ndax bàyyiwuñ Boukhatoul Moubarak ginnaaw fu ñu toll ñu ngi wax lu avancé Boukhatoul Moubarak kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh